ngi noonu nuyoo bi daal dinay am solo bu baax a baax mais dama dégg nga ni ma nuyu sama président te dégguma la nga nuyu ki nga xamante ne moom moo de le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay lu ko waral. waaw man moom euh, kooku moom nekkagul sama président wala boog du sama président. pourquoi. waaw parce que man déjà voté lu ma ko. ba pare te aussi euh, euh, élection am. Mm-hmm. dafa am ay irrégularités. d'abord. moom candidature am baaxul warloon jàll. Ah waaw ba pare te aussi bi ñuy def élection yi aussi amoon na ay njuuj njaaj. voilà loolu doy na waar di naka la demee. ay benn njuuj njaaj moo ci am. ci côté parrainage yi la ci ban côté la amee njuuj njaaj. non xam nga déjà moom parti bi mu bokk Pastef. Mhm. instant boobu le par le parti était dissous. Mhm. donc kon képp ku bokk ci parti boobu rek. yoon dafa am diir bu mu la may. Mhm. pour que nga mën a bokk ci ay élections. Mhm. ñoom nag doon leen wax ne coalition la mais malgré la coalition. coalition jomaay président. waaw mhm. coalition jomaay président su fekkoon jomaay président dafa dafa tànn keneen jiital ko. à la rigueur on peut comprendre mais moom Bassirou Diomaye Diakhar fay la coalition bi jiital donc moom euh, c'est un président de la illégal et illégitime. loolu doy na waar di. xanaa kon pendant ce temps da ngay joxoñ baaraamu tuuma conseil constitutionnel ñi valider candidature am. waaw bien entendu xam nga parce que conseil constitutionnel dañ ne bu xasee ba jël décision kenn mënatu ci dara voilà mais loolu contesté woon nañ ko même ñun sunu candidat Amadou Ba. Mhm. moom defoon na recours. ci Bassirou Diomaye. Mhm. ak aussi Cheikh Tidiane Dièye. Mm-hmm. parce que Cheikh Tidiane Dièye c'est vrai que mouvement la yore lu moom la doon mubbo mm-hmm. mais tamit ñëpp xamoon nañ ne il était très actif au niveau du de PASTEF mm-hmm. alors léegi nag conseil constitutionnel malgré tout valide na Diomaye aussi recalé euh, Karim Meïssa Wade parce que Karim Meïssa Wade aussi amoon na recours bu ñu defoon ci moom te euh, sama grand moo ko defoon euh, Thierno euh, Alassane Sall. Thierno Alassane Sall moom sama vraiment sama mag la parce que mm. partagé nañ la paire. Mm-hmm. donc mu nekkoon aussi sama mag bo vraiment boo xam ne ay relations yu baax rek aussi la ñu amoon. d'accord mais en tant que njiitum réew. il est le chef suprême. Mm-hmm. actuellement mm-hmm. en même temps. mu nekk képp koo xamante ne ab sénégalais nga moom moo di sab njiitu réew nga daal di ne yow reconnaître ko comme ab njiitu réew. loolu moom doy na waar ci ab réew. mu mel ni Sénégal di waaw mais loolu loolu du gulet Ousmane Sonko. moom élection 2019 bi mu amee ba pare malgré troisième la jël sa sekk jël deuxième il n'avait jamais reconnu le président Macky Sall boo wax du wax sax président Macky Sall ci turam lay jaar. kon yow taxawaayu Ousmane Sonko nga fa yéenee ah, taxawee. très taxawaay boobu nag laa am. parce que ñoom ñu fi leble rek lañ leen di fay lañ leen di delloo. te te buñ leen fayee ñoom waruñu mer lu ne leble leen leble leen ko lu ne gis nañ ko ñoom bi ñuy opposé wu nekk dans l' opposition. Mm-hmm. waaw fair play rek wala rek ñu ñuy souffrir rek di muñ mhm. waaw te léegi li ci am solo mooy ñoom lañ doon dikk askan bi yëpp ñu def ñoom ñooy souffrir wala yéen ñi nekk ci opposition bi actuellement yéenay souffrir. mais ñun lan la ñuy souffrir. yéen a war a dem opposé wu ji actuellement. ñoom ñoo nekk parti au pouvoir. waaw waaw kon kon kon opposition dafa metti ah ñoom bañ ca nekkee gaz lacrymogène xawoon na leen a rey. ak kaso ñu ñun amuñ ci problème. di ngeen ko gérer dinañ ko gérer. dékku kaso. mais bien sûr. Hmm. ku mel na dékku ñu barricade sa kër. oui tout à fait amuñ benn amuñ ci benn problème. di ngeen dékku loolu. non amul benn problème. te ñoom xanaa yaakaaruma ñoom li leen def yëpp ñoom ñu ko def waaw <laughs> kon xanaa affaire fayantu la. da ngeen a bëgg ñu baal leen. <laughs> non non non non non ñaanuñ njëkk. ñaanu leen njëkk non non ñaanuñ njëkk. ah kon baax waaw ah, mais comme ni ma la wax rek on va se poser dignement. Mm-hmm. waaw léegi nag. ñoom am na loo xam ne bu ñu ko defee rek day nuru fayantoo mais ñun pare nañ pour lépp. Mhm. en tout cas man sama wàllu bopp. Mhm. xam nga ñun opposition ñun am nañ ci expérience. Mhm. parce que ñun on s'est opposé ba pare ñëw ci nguur donc am nañ expérience ci pouvoir donc kon ñoom nañ def attention ñiñ jàkkaar lool. opposition bi ñu jàkkaar lool mooy opposition boo xam ne am na expérience ci opposition am na expérience gouvernementale donc kon. ñoom ñoo ñu war a ragal. su ma la déggee leen ragal su ma la déggee nga naan ñun. Mm. yéen a war a jàkkaarloo ak Ousmane Sonko ñun googu yéen ñan la lan moo desati biir APR ñoo xamante ne war ñaa mën a taxaw jàkkaarloo ak parti au pouvoir lan moo fa desati. mais ginnaaw ba njiitu réew ma dem na Amadou Ba jamono jii déggoo watul ak la majeure partie ñoo mm. faree ci coalition Benno Bokk mm. Yaakaar ak au sein de l'APR. lan moo fa desati. Ah. d'abord euh, malgré tout malgré euh, comme ni ma waxee. élection yi irrégularité yi ci am yëpp euh, malgré tout APR am na ak Benno Bokk Yaakaar am nañ cinq pour cent li ci des ñoom boo di boo génnee seen quatre pour cent euh, euh, li ci génnewaat 35 pour cent li ci des aussi nga séddale ko opposition bi. Mhm. kon lu mu bon bon 46 pour cent mu ngi ci opposition bi. te 46 pour cent dara la. noo weddiwu ma ni am na lu nekk ci opposition mais au sein de Benno au ah. sein de APR. Mhm. ma ne lan moo fa desati. waaw mooy li ma la wax. léegi nag lu mu bon bon cinq pour cent mu nga fa 35 pour cent yooyu léegi euh, Amadou Ba euh, le premier miss maa ngi koy nuyuwaale su fekkee mu may dégg. ak mhm. njabootam. Mhm. Euh, ñoom moom ci boppam kenn xamagul lan lay def. xam nga tey yaakaaruma que moom mu des APR. li ma gën a gis ak li nit ñi gën a séntu mhm. mooy mu génn def yëfu boppam mhm. parce que li ko dal ci élection yi passé mhm. jàpp nañ que ne vraiment euh, il a été combat et ñi ko combattre dëgg ci biir APR lañ nekk te foofu tamit maa ngi fi profité di vraiment jaa jëfal waa bennoo Siggil waa Benno bokk yaakaar ak camp euh, présidentiel yi waa Benno bokk yaakaar vraiment les alliés ont mouillé le maillot et n'ont pas triché ça il faut le dire mais kay ñi doon yàq wala euh, boog di combattre Amadou Ba ci biir APR la lañ nekkoon. Mhm. yaa ngi mhm. donc kon am na lu fa des. Mhm. léegi nag APR mooy xool nu muy organiser wu. te Amadou tamit bu génnee am naa yaakaar que aussi dina am doole parce que président Macky Sall ba mu gisatulee boppam PDS. en 2008 dafa gëm boppam waaye tàllal loxo sénégalais dem à la rencontre des sénégalais parce que affaire aussi loolu la. te tey amado Euh, euh, loo mënti loo mënti jàpp il est le chef de l'opposition mhm. maanaam élection moo ñëw deuxième moo ñëw deuxième d'accord nañ loolu ak moom donc moo jël mais le fait que ma reformuler waat un peu sama question tey kam la ñu war a jàkkaar lool parce que euh, quoi qu'on puisse dire coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñi ci déggoowul dañaa bari gis nañ ko fi ci élection présidentielle yi ba ñu nee njiitu réew mi choisiral ñu candidat ba mu leen mhm. choisiralee dañaa ne ko d'accord ñu ak moom mhm. Aly Ngouille Ndiaye jël yoonam mhm. Mame Boye Diao jël yoonam Uh, Boun Abdallah Dionne yàlla na ko yàlla yaram jël yoonam. Mhm. keneen ak keneen jël yoonam tey ci uh, féewaloo googu nekk ci seen biir est-ce que dina yomb ñu doon benn ngir mën a jàkkaarloo ko euh, actuellement ni parti au pouvoir ngir mën a opposé wu diiñ dignement. waa xam nga tey euh, ku ci nekk euh, les so sont autonomes wala ku ci nekk yow yaay seet la sa xel jox boo waxtaanee ñi nga war waxtaanal maanaam sa parti politique wala sa mouvement ngeen xool la conduite à tenir. tey ku mel na Bougane par exemple. Mhm. su ma jëlee exemple xam nga moom daf ne woon ay militant am leen votel ku leen neex. Mhm. donc certainement ay militant am nañu votel euh, ji gagné am na ñu votel aussi ñu nekk ci opposition bi. Mhm. est-ce comprendre. kon tey moom mooy waxtaan ak ay nitam xool ndax day ànd day dem jàppale. Euh, waa ñu nekk ci euh, pouvoir bi. wala yaa ngi keneen day bëggoon def. wala wala day ñëw ñëwul fekk si leen. wala day ñëw ci opposition bi. comprendre nga te tey la logique la logique mooy Bougane ci opposition bi la war a des est-ce comprendre nga parce que. àndul ak ñoom àndut ak ñoom bu desee ci opposition bi da ngeen a bëgg mu ñëw fekk si leen may leen doole. no non moom laa wax xam nga tey bu ko neexee moom mën na ñëw am ñu mu fekk si wala mu. continuer dëggal boppam comme ni mu noon def avec gëm sa bopp. Mhm. xam nga moom noon finalement ci benn coalition. Mhm. mais xam nga tey quel que ku ci nekk li nga yor ak maanaam sa mouvement sa parti dina am benn instant opposition bi dinañ def ay cadre comme yi fi doon jot a am ñun bi ñuy nekk dans l' opposition Benno Siggil Sénégal amoon na. effectivement est-ce ñii tamit ñun bi ñu nekkee au pouvoir. façon euh, kii bu nekk am na fi. yeewu askan bi am na fi ñëw na fi. F xaw ma 24 am na fi. lu nekk am na fi mhm. comprendre nga donc. c'est sur que l'opposition dina am benn instant ils vont se retrouver mhm. ou bien au moins di gis ñaari cadre mhm. wala ñetti cadre de l'opposition wala benn cadre boo xam ne day fédérer toutes les forces vives euh, de l'opposition comme ak yooyu même société civile ak yooyu parce que am na fu muy toll aussi xeex bi mën na laaj loolu li ma ciy bàyyi xel rek mooy li ci am solo mooy tey. Mhm. man gis naa ne au moins deux pôles mën na feeñ wala trois pôles parce que APR tey su fekk APR dafay continuer di exister avec quelques de ses alliés. parce que mhm. am na alliés yoo xam ne sax commencé leen génn. Mhm. comprendre bien que bareegul am na si ñoo xam ne dinañ continuer certainement ànd ak APR. yaa ngi dégg mais Amadou Ba par exemple su génnee da leer ne aussi moom it dina am lu mu drainer parce que. ci élection yi ñu génn am na lu mu ci représenté. effectivement léegi ñeneen ñi par exemple ku mel ne ay Idrissa Seck Khalifa Sall ñooñu ay figure lañ de l' opposition bien que seen seen seen seen électorat. Mm. wala seen pourcentage yi ñu am bariwul ku mel ne ay Déthié Fall xam nga doo xam ndax moom ndax day dem comme kaawu Bougane ni ma ko waxee léegi. Mm-hmm. Déthié Fall doo xam ndax day dem. Mm-hmm. Euh, ci waa fekk di waa nguur wala day toog opposition. Mm-hmm. ñoom Anta Babacar. comprendre nga ak waa mais man tey li ma jàpp. mooy. képp koo xam ne. bokkoo Pastef. bokk bokk la woon ci coalition Jomaay. mais ci opposition nga war a des. fa nga nekk loo boo defee leneen tu as transhumé. d'accord c'est ça la vérité. su fekkoon deuxième tour am na. parce que premier tour la ñu wax moo am. mais fekkoon deuxième tour am na. par exemple li des ci opposition bi ñii dem euh, ci Jomaay ñii ñëw par exemple. ci Amadou Ba parce que ñaar ñooñu bu deuxième tour amoon ñaar ñooñu. ñoo ñoo doon dem deuxième deuxième tour alors donc boobaa di nga ne suuf euh, euh, ñi ñi ànd ak ñi gagné ak ñi ànd ak opposition bi. effectivement quel que soit donc affaire bi loolu la. effectivement voilà léegi nag. Mhm. damay feddaliwaat ne man Macky Sall reste mon président. Mhm. le président Macky Sall mooy sama président. Mhm. amaguma beneen président de la république. ci biim réew ci Sénégal Sénégal man amaguma beneen président de la république. mu ngi noonu. te li fi nekk. Mhm. dama fas yéene jëlee ko fi. waaw ci naka nga ko fi fas yéene jëlee. mais ànd ceeg les sénégalais. Mhm. oui ci lan nga leen di xeex. xam nga tey opposition dafa baax ci réew. effectivement. ñi ñi yore nguur. dañu war a liggéeyal askan bi. maanaam parce que askan bi dafa leen jox seen alal seen doole. ne leen ñu liggéeyal leen c'est-à-dire ñoom ñu am lu ñu lekk am lu ñu naan am fu ñu tëdd am ay infrastructure par exemple de moyens de déplacement wala boog ay jubtukaay est-ce que nga mhm. donc li ci war yëpp xam nga ko xam leen ko mhm. Mhm. comprendre boo xoolee rek à travers un gouvernement les ministères wàllu ñi yëngatu ci wàllu mbay mi soxla leen ku leen accompagner ku leen jàppale waa élevage waa euh, nit ñi soxla leen courant soxla leen ndox effectivement xam nga soxla ne ay tali. Mhm. et cetera et cetera donc kon lépp lu Sénégal am ci ressource. Mhm. ñoom dafa am ñu ñu koy dénk.